asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi nga xam ne yéen a jàkkaarloo ñun ci seen télé di RTT TV télévision des artisans de Thiès amaat nañu mbégte ak bànneex ci saa su nekk ni ñu leen koy defee ci seen émission 100 pour cent artisanal euh, lépp lu ñeel euh, secteur bi rek saa su nekk ñu jóg di ci dox jëm ca lépp loo xam ni soxla nañ ko ci information ci secteur bi ñu jóg dox jëm ca euh, tey jii nag am nañu mbégte dalal benn kuréel koo xam ni ñu ngi leen di woowee section féminine bu regroupement des terres de la région de Thiès. seen présidente Néné Diakhaté moom la ñu dalal ak ñi nga xam ne ñoom la seqal liggéey bi yëpp bu ngeen gisee plateau bi xam ne tey euh, euh, jigéen jigéen yi regroupement bi moom la ñu dalal. Euh, waaye ñu nuyu mboolem téléspectateurs yi yëpp yi ñuy seetaan nuyu président Mamadou Seck mi nga xam ne mooy président regroupement des tailleurs de la région de Thiès euh, nuyu président Amadou Makhtar Seye président chambre de métiers de Thiès euh, nuyu suñu ministre docteur Pape Amadou njaay mi nga xam ne moo jiite secteur bi aca mbokk yi duñ sori ci kaddu gi dañuy ñëw rek xool suñu invité yi lan lañ ñu indil tey ginnaaw bi ñu nuyoo ñu nuyu présidente Nene Nene ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoo téléspectateurs yi bisimilahi rahmaani rahim euh, maa ngi nuyu euh, RTT TV. Mm-hmm. di nuyu regroupement des tailleurs de la région de Thiès di ko teg ci loxo président Mout Seck. Mm-hmm. mu tegal ma ko ci loxo membre yëpp. Mm-hmm. di nuyu section féminine di nuyu euh, ministre de l' artisanat ministre chambre de kii Pape Amadou Seye. chambre de métier. waa chambre de commerce. ñëpp vraiment daal bàyyi ma képp koo xam ne rek yaa ngi dund yaa ngi dox ci artisanat rek maa ngi lay nuyu. jërëjëf ci nuyoo bu am solo boobu ñu ngi suñu wet euh, ki nga xam ne mooy Kumba Cissé euh, bu marché Ngelaw moom it bokk ci li nga xam ne mooy section féminine Kumba ñu ngi lay nuyu def naa moo jiitee commission d' organisation. Ah, le groupement des terres. Ah, muy nuyoo bu am solo bu ko defee rek euh, noonu la ñuy waxee mbokk yi tey jii euh, dalal nañu section féminine xañ na bu ngeen leen déggee wala ngeen gis leen di nga xam ni ay jigéenu couturière nekk ci dëkk bi nekk ci région de Thiès euh, di kuréel goo am solo waaye di kuréel goo xam ne dafa yaatu ndax bu ñu xoolee daanaka li nekk biir Thiès ak li ko wër yëpp seen kuréel gi am nañu ci bokk ñoom dinañ ci ñëwal seen bopp xam naa ci présentation damay jox présidente mu dikkal ñu ci section féminine lu ko tax a jóg waaw sëñ Khadim euh, section féminine li ko tox a jug section féminine dafa bokk ci regroupement des tailleurs de la région de Thiès. Mhm. dafa mel ne garab gi rek mais benn branche bi rek mooy section féminine. Mhm. li tax mu jóg nag mooy mhm. euh, jigéen ñi dañoo néewoon trop ci regroupement bi. Euh, ñu naan ana jigéen ñi ana jigéen ñi. ñu jug nag def ay démarches regrouper couturières yi nga xam ne dañoo nekk ci région bi ak département bi yëpp ndax bëgg ñu àndandoo parce que comme ñoom ñoo bokk métier bi waruñu ko ci nekk toog sa ruq te vraiment dafa dañoo dafa laaj développement euh, métier bi dafa dem foo xam ne toog rek arrangé wuñu il faut ñu jug dekk benn bloc boole liggéey euh, vraiment yóbbu ko foo xam ne dañ naan sax couturière regroupement de de la région de Thiès vraiment def nañ fi lu kenn deful def vraiment vraiment loo xam ne innové dañoo bëgg a moo tax ñuy regroupé couturière yëpp muy waa Ngunjaan muy waa Jandeer muy waa Caajaay waa Pout waa Mbuur waa Tiwaawoon Nooto Mbooro bàyyiwuñu kenn vraiment Tiwaawoon ñëpp couturière yëpp la ñu bëgg a dajale muy région de Thiès. loolu daal moo ñu tax a jug vraiment. moo leen tax a jug ñu gis ngeen nekk ay couturier nekk ci secteur bi aussi. Mm-hmm. Ah, dafay mel ni euh, yàggul dara seen kuréel gi bi ngeen ko taxawalee. mën nga ñu kañ ngeen ko taxawal. dikkalaat ñu tey aussi tamit liggéey bi ak ambition yi fan la toll. waaw euh, bi ñu ko taxawaale euh, mooy euh, bi nga xam ne président Motsek fal nañ ko. Mhm. mu fal ma présidente. Euh, ci ci mandat boobu lañ ko commencé. Mhm. Euh, parce que dañuy wax ne euh, sunu secrétaire général da ne ku ci nekk commission bu ci nekk. Mhm. lan nga xam ne mooy sa programme ñu tegoon sunu programme que ne. Mhm. ñun kat dañuy def consultation de col col de l'utérus ci en partenariat avec Maristop. à travers région yëpp à travers région bi à travers tous les onze marchés. ñu def ko. mu desoon ci dañuy def sunu assemblée def nañu lancement bi vraiment mu doon lancement bu am solo. bii assemblée teg suñu bureau. Euh, xam nan la ñu mën a suñu feuille de door koo mën a dérouler nag xam nan la ñu mën a doxee parce que suñu amul bureau du ñu mën a dox waaw il faut que ñu am bureau teg ko teg commission yi ñu mën a dox parce que li ñuy liggéey mooy dañoo bëgg doole dooleel regroupement des de la région de Thiès parce que ñun defe naa ne jigéen ñi suñu jugee mhm. ba liggéey rek regroupement bi dina am beneen changement boo xam ne dinañ ko gis ci regroupement bi mhm. vraiment mel ni noonu ngeen déparé mhm. pour am ambition liggéey euh, soqali secteur bi nga xam ne ci ngeen nekk day mel ni secteur la boo xam ne dañ ko war a dooleel rawatina yéen jigéen ñi dañuy wax ni jigéen baax na góor baax na waaye euh, développement wu réew loxol jigéen da ciy saf-sap euh, yéen nag ngeen am engagement boobu tey ji kuréel gi tey couturier boo xam ni mu ngi woon doon jàkkaarloog yow Euh, ci RTT TV bëggoon a ñëw bokk ci li nga xam ne mooy kuréel gi yan buntu la mën a jaar ba am accès. waaw euh, bunt bi mu mën a jaar euh, mooy euh, sama numéro ku ko am képp koo xam ne rek mu ngi ci yaa ngi koy xàmmee ci mu nekk couturière soo ko wooyee laaj ko rek dina la indiqué ba nga xam ne di nga xam fi ngay jaar pour dugg ci biir groupe bi ah. waaw képp ku foo koo gis rek seen siège fan la nekk sunu siège regroupement des tailleurs de la région de Thiès la ah. hmm. ku ñëw ci président moo boo ko laajee ku ñëw ci Khadim Soumaré boo ko laajee tailleur boo gis couturier boo gis hmm. couturière boo gis boo ko laajee rek na la woon bunt bi ne la fii ngay jaar hmm. yan jafe-jafe ngeen ngeen sentir ba tax ngeen jël engagement bi ngeen am. waa jafe-jafe yi mooy. Mhm. dañoo dañoo mel ne ku ku ñu néewal daal dañoo néew trop. Mhm. waaw dañoo néew trop mhm. te vraiment yow xam nga jigéen lu mu bokk. dafay am solo trop trop. waaw looloo tax daal vraiment ñu ne nañu jug. parce que toogaay bi yàgg na te vraiment damay gis sax dañu dañu xaw a tardé. waaw bu ñu toogee dañuy tardé te vraiment dañoo bëgg avancer. parce que gis nga ñi nga gis nii ci section féminine. ay chef d'entreprise rek moo fa nekk amul apprenti. te bu bis baa le 29 octobre euh, di ngeen gis ne euh, section féminine du lu ndaw waaw ay grande dame ay chef d'entreprise ay ñoo xam ne ñu am ambition ñu am vision rek ñoo fa nekk ñoo fa nekk waaw ñoo fa euh, nekk lu tax kon kuréel gi tardé ngeen toog ba heure bi ngeen soog a taxawal kuréel gi lan moo tax xanaa dafay Euh, lan ambition yi moo fi nekkul woon wala lan la. non du loolu yàllaa ko tudd rek. Ah. day door a egsi rek. day doog a egsi waaw day door a egsi tey xëy na tey la ko yàlla bëgg. Ah. moo tax mu taxaw suñ ko forcé woon xëy na sax du am. Mm-hmm. mais yàlla bu ci àndee. Mm-hmm. loolu laa rek day dem xëy na mm-hmm. tey la ko yàlla dogaloon moo tax. tey yéen ci ñaata membre ci kuréel gi. ñoo ngi au nombre de 200 membres. 200 membres waaw. membres yi euh, par carte la ñuy adhéré ci groupe bi wala nan. non euh, pour l'instant nii. moo tax ma ne la ñu def assemblée bi. pour l' instant nii ñun dañoo bootu ci regroupement des tailleurs de la région de Thiès. Mhm. bu ñu demee nag ba def suñu assemblée pare. Mhm. Euh, quatre membres mooy regroupement bi rek. quatre regroupement bi moo lay boole ci euh, section féminine. waaw moo lay boole ci section mais am na yeneen yu ne ci biir yoo xam ne. Mhm. bu ñu demee ci assemblée bi dinañ ci waxtaan lépp ba nga xam ne ku ci nekk di nga xam ne lii moo la war ci section féminine. lii moo la war ci regroupement bi. Ah. muy lu am solo muy lu am solo euh, kon noonu la ko présidente waxee présidente Ndéné Diakhaté euh, moom nag euh, ku neex a la ndax jigéen la joo xam ne jàmbaar la bay na waar wu yaatu ci li nga xam ne mooy regroupement des terres de la région de Thiès nekk ci jàmbaar lool ci lu yàgg nekkoon seen trésorière ci diiru 2009 ba fi ñu ci toll ci moom a Mamadou Seck lañ ko joxe waat beneen responsabilité muy présidente tey jii moom ambition ànd ak jigéen yi Thiès yi nga xam ne ñoo nekk ci secteur couture bi pour liggéey ak ñoom engagement boobu la jël am na solo lool euh, waaye euh, ci euh, jotaay bi nga xam ne fi la ñu toog gis ngeen fi ay Fall jare bi moom it di kenn ci regroupement bi di ki nga xam ne moom it moo njëkk nekk présidente regroupement bi mu ngi ni toog waaye ngeen gis Ndeye Marème Cissé aussi ci jotaay bi moom it nekkoon président regroupement de DTR ñoom ñi bu nu dajaloo rek luñu lu ñu mënul amul waaye ngeen gis ci suñu wet Koumba Cissé gis Ndeye maam Marème Mbaye ah gis ki nga xam ne mooy soxna Khady Gueye ah, dafa mel ni présentation bi am na ñeneen ñu ci des de nga dikk daal ma ci rek présidente ah, ah, gis nañu nen ne eh, gis nañu maam mbaw Maymuna Mbow a mbaw Marème ah. Gueye Marème Gueye waaw kay. waaw ñoom ah. Marème Seye. Ah, ñu nuyu leen bu baax ñu di leen wax ni ñi ñoo fi euh, représenté li nga xam ne mooy section féminine ngir jéem a euh, ubbi bunt yi ba yéen ñi jàkkaarlook ñoom ngeen mën a xam jigéen ñi Thiès ak euh, engagement bi nga xam ni am nañ ko ci secteur bi. Kumba ngeen di préparer li nga xam ne mooy seen assemblée général naka ngeen fas yéene organiser journée boobu. waaw sëñ Xaadim ñu ngi organisé bés bu mag boo xam ne xaw na bi ñu ko bëggee yàgg na mais suñu borom mu ngi koy dooraa dogal mm-hmm. muy le 29 ñu ñaan suñu borom mu yóbbuñ ci jàmm ak salaam mm-hmm. parce que xam naa ku fa ñëw di nga ko gis loo xamante ni mosoo koo gis mm-hmm. waaw ay or ñu ñuy daal yoo xamante ni macha allah ñu ngi oo képp koo xamante ni yaa ngi nekk jigéen ngay suivre émission bi wala ku ko loo xamante ni ngay naf pisu rek nekk Thiès ñu lay oo ci journée bi mm-hmm. yaa xam bokk nga même même su fekkee bokkoo ñëwal mm-hmm. nga ñëw dugg nga xamante ni fii ay jigéen ñi fi nekk ay liggéeykat lañu mm-hmm. euh, programme bi nag dañu bëggoon mu teel parce que du Cees kese waa Mbuur dañuy ñëw euh, ay Tiwaawan Caajaay ay mbooro ñoom ñëpp comme dañuy ñëw mhm. ñu ngi jox rendez-vous daal ñëpp ñu teel a ñëw mhm. xam ne même suñu càmmi ñi tamit ñu leen di woo ndax suñu fa ñëwee mën na am loolu dina am lu mu def ci ñoom parce que mhm. nee lu góor mën jigéen moo ko ko dàq te ñu loolu dañ koy dëggal ndax jigéen ñi nekk section féminine kenn ku ci nekk rek mën nga koo yoon wax dëgg yàlla mais suñu borom dañuy sant ba ñu boolee présidente ndax moom bañ na ko su duggee sax danaan ñëpp ay présidente lañ mhm. nekk jigéen joo xamante ni macha allah dañuy ñaan la suñu borom mu oyofal mhm. yéen bi mhm. ci lu mais ñu ngi dox daal ñëpp rendez-vous ñu ñëw le 29 le 29 bu ku ñëw daal ku ko tardé di nga tardé lu rëy ah le 29 fan ngeen di amalee événement bi waaw Daniel Broutier lay nekk Daniel Broutier waaw Daniel ah. Broutier lay nekk uh-huh. bu comme ñi nga xamante nii ñëwuñu xamuñu Daniel Broutier moo ngi den ak église bi côté yi foofu la dañuy. ok euh, invitation yi ci lan la sur invitation la wala da ngeen joxe ay carte wala nu ngeen ko organisé. waaw invité nañu moom am nañ ay invitation yoo xamante ni ñu ngi koy joxe fan yii nii. Mm-hmm. Mm-hmm. parce bëgg nañ bépp autorité bu nekk fii la jàppale ci ñëw taxawuñ ci suñu ko ne kenn ko xeebal bésam. Mm-hmm. amuñ na regroupement bi am nañ ay journée mais ñu comme jigéen ñi dañu am suñuy journée. te regroupement bi luñ taxaw jigéen ñi dañ ciy mëne. ci côté yëpp dañuy dem kenn du leen féete ginnaaw. kon ñu ngi leen di woo ñu ñëw. ñëpp taxaw ñu daal ci suñu journée boobu. dañ koy xëyee daal. waaw 10 heures. 10 heures waaw su fekkee sa classe bi sax ak président comme jaxate jaxate sumaari sumaari. waaw bu leen neexee bu ñu fajar mën nañoo ñëw. ñu ñëw jàppale leen ci li nga xam ne mooy seen ndékki yeeg yooyu. man bu ma waxee loolu rek da nga xam ne président moom ndékki la njëkk a wax. waaw xam naa ni yéen moom euh, ñi sant Cissé ak yooyu moom. moom ah. bu ñu jullee fajar moom dinañ waaw kon mu ngi noonu euh, loolu mooy événement bi euh, comme ni ko Koumba Cissé mi nga xam ni moo jiite commission d' organisation waxee euh, incha allah rabi le 29 lay doon ci dernier broutier. Euh, bu nu xëyee euh, lañ ko fas yéene tàmbali mu nekk yendu yendu lay nekk xaj na kon euh, ku fa ñëw rek te sant siise wala jaxate boo ñëwee sa xol dina sedd incha allah ndax mboolem xeeti xéewal rek dana fa am ah, man moom bu ma ñëwee dana leen jàppale bu ko defee ñu mën a woyof daal incha allahu rabbi kon mbokk yi dañuy ñëwaat ci président moom it mu wax ñu ñan la fas yéene àndal ci journée boobu waaw sëñ Xaadim woon nañ ci ministre de Euh, woo ci euh, waa chambre de métier. Mm-hmm. woo ci waa chambre de commerce. Mm-hmm. woo woo nañ ci waa DER. Mm-hmm. woo nañ ci ministère de la femme. Euh, développement communautaire woo nañ ko woo nañ ko ci. woo nañ ci tam waa waa crédit mutuel. waa ASEP. woo nañ ci maire yëpp. maire de ville maire. zone nord maire euh, zone ouest mhm. ñëpp vraiment gouverneur préfet mhm. ñëpp woo nañ leen ci mhm. woo nañ ci nag bépp koo xam ne rek da ngay nas puso nga nekk biir cees wala nga nekkoo biir Thiès sax mu intéressé la vraiment woo nañ la ci woo nañ ci couturière woo nañ ci jigéen ñi nga xam ne tamit bu ñu ñawul sax ñun ñoo leen di ñawal ñëpp sunu cliente yëpp ñoo ngi leen ciy woo ne leen ñëw leen ci bis boobu ngeen seetaan couturière yi nga xam ne ñoo nekk biir Thiès di leen ñawal yu rafet vraiment ñoo ngi leen ci ci bis boobu euh, président xam ne vraiment moom tamit mu ngi ciy dox lu lu am solo euh, bàyyiwuñu vraiment ñu wéet parce que lépp loo xam ne rek dinañ ko def rek dinañ ko jaarale ci moom moom tam mu dox ci lim ci war a dox mu ngi ciy dox subaa guddeeg bëccëg subaa ngoon di vraiment remercier ñi nga xam ne ñëpp ñi nekk sama ginnaaw section féminine man damaa jiite rek waaye ay ñëpp ay présidente lañ macha euh, gis nga li ma bëgg ñoom ñoo ma ko gën a bëgg li macha allah euh, ma Ndeye Marème Cissé nekk mii ci ginnaaw nekk présidente Euh, chaque jour lu ma xalaat day woote présidente defal nii defal nii maire Khady Bass mi nga xam ne vraiment dafa nekk sunu biir mm-hmm. nekk mag waaye vraiment wax dëgg yàlla moom dafa yanu bis bi waaw Aïda Diarra bi mm-hmm. ñaata fan ñuy ànd mm-hmm. di dox di wër di di di di ndax bis bi waaw ñëpp damay wax ne euh, ñoom ma Mara Mbaye bàyyiwuma section féminine ñëpp bëgg bis bi réussir kon boog damay ñëw di lancer un appel vraiment autorité yi nañu ñëw jàpp ci bis bi. Mhm. parce que ñun moom ñoom la ñu am. c'est bu ñu jëlee suñu temps. Mhm. jël suñu as tuut. Mhm. bind suñuy lettre dem ba ca ñoom. jébbal leen ko ñoom it nañuy am tuuti loo xam ne dinañ xam ne ñii kat yëg-yëg boobu. nañ leen ko delloo. loolu dafa am solo. mais boo ko defee ba pare tamit nga gëstu. gisoo leen day xaw a am lu muy mel. maa ngi leen di lancer un appel. ñëw leen ngeen jàppale seen i jigéen. jàppale seen i mbokk jàppale vraiment région de Thiès. Euh, muy appel bu am solo ndax euh, képp koo xam ni Thiès moo la ñor euh, boo gisee képp koo xam ne ñu ngi taxaw di jël seen di jàpp ci ci Thiès ngir mu jëm ca kanam da nga war jàpp dafay mel ni appel bi mu def nii am na solo bu defee ñuy fàttali autorités yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi bëgg dëkk bi baax bëgg dëkk bi set bëgg dëkk bi avancé na ni seet seet ñi nga xam ne dañoo am engagement ci dëkk bi pour lépp loo xam ne dafa dafa war a doxal dëkk bi ngeen gis seen loxo nekk ca biir leen jàppale te bañ leen a ginnaawal hmm. loolu lu am solo la muy appel bi nga xam ne moom la présidente nee Soxna Jaxate def euh, dégg nañ sànq ci Koumba Cissé mu ni raison bi yëpp dajale ngeen jigéen ñi raison bi yëpp loolu naka ngeen ko defee ba réussir ko xanaa yombul woon de. non yombul. Mhm. yombul mais jafewul noonu. Mhm. parce que da xool région bi. Mhm. képp ku nekk fii xam nga nit ku nekk Tivaouane mhm. ñun dañoo nekk ci ci mouvement yi mhm. euh, dañuy xamante mhm. euh, région ba département bi kii bi yëpp foo dem rek xam nga koo xam ne di nga ko woone ko ah man de dañoo organiser lii ana say jigéen ñenn ñi sax ñoom ñoo lay woo dégg naa ne kat da ngeen a organiser lii man de am naa fi ay femmes yoo xam ne vraiment déterminé nañu boole leen ci ci regroupement bi boole leen ci section féminine lool noonu la demee daal de bouche à oreille ba ñëpp vraiment te vraiment pareeguñu li début la euh, dañu ñaan yàlla bu ñu jugee ci lii ñu def ay tournées yoo xam ne à travers la région. Mm-hmm. Euh, génnee couturières yëpp boole leen ci ci section féminine. Mhm. waaw loolu la ñu loolu la ñuy ñaan yàlla bu ñu paree. Mhm. waaw tourné ah, ci région bi tourné ci région yi. Euh, dajale leen dajaleel ñëpp ah, gën a liggéey ak ñoom. waaw bëgguñu kenn koo xam ne day toog ci ruq. Mhm. mais ba léegi waxuma ambition yi lan la ba léegi daal des na des naa dégg ambition yi lan la. ah ambition yi bari na. ambition yi ñu bëgg. Euh, euh, bëgg nañu di bokk ci foire yu mag yi. foire yu mag yi waaw parce que toll nañu région de Thiès toll na foo xam ne lu mu bëgg war na ko am. ci foire yu mag yi nga xam ne international sax war nañ faa mën a dem mhm. bëgg nañ ci formation yu mag yi mhm. parce que ñun membre yi bari nañ bari goo xam ne bu ñu joxee tuuti formation daf ñuy sonal mm-hmm. bëgg nañu waa 3FPT waa mm-hmm. ADP ma mm-hmm. di ñu may formation yu bari yoo xam ne yu régulier yoo xam ne membre yëpp dañ leen di former parce que liggéey bi dafa dafa changer de style ba nga xam ne ku formé wul nekk ca la nga nekkoon da ngay tardé waaw c'est vrai ñoom daal ñoo leen di def un appel que ne bëgg nañu lool bëgg nañu ci financement yi financement yi bëgg nañ ci parce que boo boo accompagner nit ba defal ko formation te accompagner woo ko ci financement tam day toogaat mooy en grosso modo loo xam ne daal. bokk na ci ambition yi. am na solo am na solo dafay mel ni li ñu waxoon sànq rek moom la ñuy dëggalaat ci kàddu yi nee jaxate avancement la ñu bëgg. Euh, te avancement mënoo ko def sans formation euh, yokk sa niveau bi nga xam ne ci nga nekkoon waaye mënoo ko def te amoo ay moyens yoo xam ne mën nga ko utiliser pour def loolu. dafay mel ni foofu la nee na waxee bu ko defee ñi nga xam ne ñooy organisation yi fi nekk te di leen di accompagner yi euh, nañu ñu mën a avancer ndax ñoom it ñu ngi def premier pas yi ndax fexe ba dajaloo rek rek dafa dafa dafa jafe waaw loolu moo gën a nekk problème fexe ba dajaloo ñoom nag yàlla dimbali nañ ñu réussir loolu dajaloo nañ am nañ ay ambition pour liggéey euh, kon day jaaru nag ñu def appel ci mboolem koo xam ne rek yaa ngi seetaan RTT TV euh, nga nekk autorité wala nga nekk organisation yoo xam ne yaa ngi jàppale femme développement yi nga ñëw taxawu leen ndax ñoom bari nañ fi wax dëgg yàlla mm-hmm. euh, te dañuy wax ni dëkk bi moo leen ñor kon war nañoo mën a ñëw ànd ak yéen pour defar dëkk bi soqali it secteur artisanal dafay mel ni kon présidente mm-hmm. Euh, kàddu yi dañ koy ñëw kii kii foofu rek. bu mhm. fekkente ni am na loo ci bëgg a dolli. Euh, nga ñëwaat ci incha allah bala ñuy jox euh, organisateur mu wax ñu añ ñi ban heure lay pare xam naa ne waajal na ay ginaar moom ndax Cissé la sant <laughs> ah, Cissé la sant. <laughs> waaw est-ce que duñu bàyyi euh, euh, Ndeye Marème Cissé teg ci. def ci ah, ka ah, sànni ci kàddoom ak euh, Aïda Diarra bi ah, ak Aïda parce que comme ñun ñoo bokk liggéey bi vraiment ni ciy dox boobu ba léegi. war na ñoom it ñu sànni. am na solo am na solo présidente kon day demander ki nga xam ne mooy Ndeye Marème Cissé mu yëkkati ci ay kàddu. nuyu waa bi hmm. di nuyu di kontaan vraiment ci li ngeen defal section bi. Hmm. wane ngeen moom. ñun ñëpp benn lañu. Mm-hmm. ginnaaw bu bëree bëri. Mm-hmm. wax suñu bés bi ñu jëm nag sama wax sax du ci bëri na ma ne woon du ma jël kàddu. Mm-hmm. yàlla nañ ci dugg ci bisimilahi rahmaani rahim. ñu eggale ko ci alhamdulilahi rabil aalamiina. amiin amiin yàlla nañu yàlla defal loolu. ñun ñëpp ñu fekk ko kenn bañ manqué ci barke yonent bi. loolu rek a tax ma jël kàddu. bi ñu ci bëgg. réussite bi ñu ci bëgg. Hmm. yal nañu ko yàlla defal. amiin amiin loolu daal laay ñaan sama ko ci bëri. Hmm. te xam naa ne incha allah daaw hmm. yal nañu cat seetlu. amiin amiin amiin xaadim kontaan nañu trop. jërëjëf jërëjëf yow it yal na la yàlla fay. amiin amiin suñu télé artisan bi ci kaw ci baax ci kaw ci yàlla teg euh, télé bi bañ fu ne tamit. amiin amiin macha allah rek. amiin amiin macha allah amiin macha loolu mooy kàddu yi présidente euh, kàddu yi am na solo euh, bu ngeen ko dégloo ni mu waxee ngeen xam ne moom it maîtriser li nga xam ne mooy regroupement des DER la euh, am ci lu mu ci xam lool euh, bu ko defee ay da euh, xam nañ ko xam taxawaayam ay satu ñu lay nuyu. sëñ Xaadim maa ngi lay fay. di la bàyyi nga nuyoo téléspectateurs yi. waaw maa ngi nuyu téléspectateurs yi ak Sénégal plus yi. Mhm. di nuyu suñu mbokku couturier ak couturière yi. Mhm. macha allah di kontaan ci annonce bi tey. Mhm. suñu préparation le 29. assemblée générale. section féminine bi nga xamante ne. regroupement des tailleurs moo ko meññ. ñu mm-hmm. ñaan yàlla li nga xamante ne moom la ñuy def. Mm-hmm. yàlla barkeel ko. amiin amiin def ci ouverture bu mag a mag. amiin parce que dafa jot aussi parce que liñ naan jigéen moom lu mu bokkul baaxul. Mm-hmm. lu mu taxawalul neexul. te comme buñ demee ba ñun ñi nga xamante ne ñoom ñoo tax ñëpp am. taar ñëpp mën a siggi ñu aaye tey day neex kon nag ñu ngi leen di woo ci le vingt neuf suñu assemblée générale bi fële ca Daniel Brottier mm-hmm. ñu ñëw vraiment ñi ngi woon ñëpp daal bàyyi ñu kenn mm-hmm. ndax euh, mbirum jigéen la kon mm-hmm. bàyyi ñu kenn cliente yi yeeg ah kilifa yi autorité yi ñu ñëw pour mën a xam ni ngi lan la ñuy liggéey ak fan la ñu toll da ci am solo am na solo may wax chaque jour parce que développement mënul am sans les acteurs pour ñu ñëw fekk si nit ñi xam seen seen seen ak li ñu fas ne def comme li ko présidente waxee léegi rek mooy ambition yi ambition yi aussi fokk aussi ñoom ñuy approché acteurs yi dañ koy rafetlu nag di bég lool parce que DER moo ngi koy def di remercier le président de la république monsieur Macky Sall parce que gis nañ ni ñu accompagner ak ni ñu bàyyi xel ndax ku xool formation yi xool DER ni mu ñëwee taxaw xool ADP ma ah xool ñu ñi nga xamante ne ñoom ñëpp ñu ngi ñëw pour encadrer loolu dañ koy remercier président mm-hmm. di wax nag bu kenn des na ñëw suñu ministre mm-hmm. suñu directeur de l'artisanat mm-hmm. euh, femme de développement yi na ñëpp daal ñëw xool couturier lan lañ taxawal macha allah daal di féliciter aussi suñu président suñu présidente aussi ndax jigéen ju mën góor la euh, yàgg na ci regroupement bi ba tey lii nga xamante ne ñu yan ko ko dañ koy ñaan yàlla yan bi oyof te du ci wéet ndax dinañ ci ànd ak moom ba yàlla def ci sutura ci barke Seydina Mohamed ñu ngi remercier aussi waa RTT TV la mm-hmm. ñu demee ba bëgg wax fu ñu waxee mm-hmm. neex na am na solo macha allah daal ñu ngi remercier ñëpp am na solo am solo loolu mooy kàddu euh, présidente Aïda Aïda Diarra bi euh, di femme des grands ma man moom laa ko tuddee ndax euh, kuy taxaw ci li nga xam ne mooy événementiel la xam nañ ko ci loolu expérience bi aussi macha allah. Euh, ñu ñaanal ko sunu borom dolli ko jàmm. Euh, dafay mel ni bu ngeen dégloo euh, intervenant yi nga xam ne ñoo fi jub ngeen xam ni ñii am nañ ambition waaye xam nañ fañ jëm accompagnement rek dañuy xaar waaye ku leen jàppale tuuti rek ñu dem seen yoon xam nañ fañ jëm am nañ ay ambition xam nañ li leen li leen manqué xam nañ aussi tamit li nga xam ni moom la soxla pour mën a dem kon nañ leen jege comme ni Aïda waxee nañ leen jege parce que mënoo ne damay dimbali secteur bi te xamoo ñan ñoo nekk si secteur boobu il faut nga jege am problème pour man cee taxaw euh, dafay mel ni kon euh, émission bi mu ngi jëm ci jeex euh, ñu gërëm mbooleem koo xam ne rek yaa ngi doon seetaan li nga xam ne mooy RTT TV di bàyyi présidente mu def kàddu gu mujj rek waaw ah, yaa ngi ak micro sax mën nga wax sa micro rek ah, ah, waaw comme ni ko jara bi waxee ak ñëpp wax ko rek. Ah. ñoo ngi euh, doon joxante rendez-vous. Ah. le 29 octobre. Ah. Euh, au au sa à la salle Daniel Brottier. Euh, bu kenn tardé. à partir de 15 heures. Mm-hmm. na ñëpp ñëw. Mm-hmm. soutenir ñu. Mm-hmm. soutenir seen i rak soutenir seen i jigéen. góor ñi bu kenn toog. tailleur yi bu wàcc leen machine yi. ngeen ñëw. jàppale seen i jigéen. parce que mm-hmm. jigéen ñi dañ fee nekk mais yéen lañ fi nekkal. Mm-hmm. waaw kon boo ko appel boobu laay def daal. Mm-hmm. vraiment di remercier sëñ Khadim. remercier RT TV. kontaan nañ ci moom parce que liñ naan bu ñu demee ba am suñu téléphone ñu neex joo lu ñuy jooy jooy ko fa. waaw lu ñu neex wax ko fa. kon tey jii dañ koy sant yàlla xam ne yokkute la. waaw vraiment di remercier ñëpp daal di woo ñëpp jour ba daal yàlla nañ ci yàlla yóbbu jàmm ak salaam. ba ñu ñëpp bu kenn manqué bu kenn manqué le daal. amiin ba ñëpp fekk ko incha allah. amiin merci beaucoup Kumba euh, añ ban waxtu lay pare. waaw est-ce que duñ la ko yàttal 14h. 14h waaw nga mën a taxaw. kon baax na kon 14h incha allah rabi ci lañ fas yéene euh, génne li nga xam ne mooy xéwal yi euh, kon day mel ni foo waay mën a nekk rek boo xëyee 10h da nga ñëw nekk si waaye boo toogee tuuti rek 2h ak 10h soreewuñ. bu ko defee ñu génn xewal yi mm-hmm. ah, kon événement baa ngi noonu mbokk yi la le 29 lay am fi nga xam ne mooy dernier Berthie ci fi nga xam ni euh, mooy diggu Thiès mën nañ wax ni mooy xolu Thiès euh, képp koo xam ni it am nga yéene teew ci euh, te boo jokkoog nen ne wala nga jokkoog coordinatrice yi ci nekk wala organisateur yi ci nekk dinañ la orienté ba nga ñëw incha allah te doo sonn boo defee kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jox rendez-vous ci beneen jotaay 100 pour cent Euh, ñu ngi amoon ci technique bi ki nga xam ne mooy Doudou euh, mi nga xam ne mooy yoroon euh, technique bi ànd ko ak Thiat mu Serigne Saliou ñu jaajëfal leen bu baax sant leen bu baax gërëm leen jox leen rendez-vous ci beneen jotaay incha allahu rabbi